jàpp demee gauche jàpp demee waa droite am na lu jat Siteu bu andi na tekki di ko xool bu yaraax ak bu andi Ama nanguwul a taxaw mu koy wër wërloo di jat Ama ngay jat pare na Siteu bu andi dox na direeku wuti ko Ama dellu ginnaaw Siteu bu andi toppaat na ko. Ama ngay demee wet. Siteu ngi tiree di ko topp. Ama ngay demee wet. ñoom ñaar ñu xaw a nduroo ci ngemb. ku ci nekk sa ngemb am na lu vert ak lu weex waaye lu xonq li Ama moo ko am Siteu amu ko Siteu wàccaat na Ama dëgal na boppam dóor na ko gauche droite ñu ngay dóor Siteu ngay dóor Ama larum na ci kaw Ama ngay caxabal Siteu bañ Ama jàpp na songale ko na ko mu bañ Siteu ngay jàpp ci suuf na Siteu jàpp na mu koy jéem a kal Ama dëbb na ko mu rëbb Siteu daal di jël Ama rasuwaat dugalaat tànk ba mu koy jéem a bot Siteu bañ Siteu ak Ama jàppante nañu bëtt na ko caxabal Ama weeru ko attention Siteu ak Ama jàppante nañu koy bëree Siteu ak Ama ngay bëree attention Ama Siteu nga ci suuf Ama waroon nangu loolu Siteu ak Ama jàppante nañu daw na kal ko Ama bi jom mu bañ mu dawaat dàq ko Siteu ko Ama kal na ko daan na ko ñaar yegg nañu suuf ku daan ku daan arbitre Siteu bu andi daan na Ama bu Yaraax Siteu bu andi daan na Ama bu Yaraax jël bu amul benn werante Siteu bu andi daan na Ama bu Yaraax Siteu bu andi daan na Ama bu Yaraax première défaite Ama bu Yaraax Siteu bu andi daan na Ama bu Yaraax